courant bi bëgg a tàkk ci loxoy njiit réew mi neexul Macky Sall l'observateur nañu am na kenn ku bokk ci cabinet njiit réew mi ku leen xamal leen li gën a naqari Macky Sall ci coow li moo di li mu dégguli responsable yore énergie ci réew mi génn wax ak askan wi leeralal leen ngir dalal seenum xel Macky Sall jàpp na ne muy Pape Mademba Bitèye njiital Senelec di kilifaam Mouhamadou Makhtar Cissé ministre énergie ñoom ñëpp seen taxawaay ci mbir mi dafa des ne bu ñu waxoon ak askan wi leeral leen li tax état bi dindi subvention bi mu doon def ci courant bi ba mu waral ñu yokk njëgu courant bi ba mesure jékki la ji leer ci seen bopp kon ñaxtu du ñu xultu te it seeni dënn du jóg kii wax ne leen donte directeur général bu Senelec di Pape Mademba Bitèye jéem na ko ba génne ay siifaram tekk terewul président gis ne yëf yi des na da ko waroon a jaral mu xutti ci tànku tubayam jaral ko lu nekk ñi koy xeex mu jaral leen lu nekk di collectif ñoo lànk ñoo bañ la Sénégal nee nañu bañatuñ ci dara ñoo ngi gën a taral di teengal di tampé ka tullee ka tëstas yi yokk dogalub yokku courant bi dellu fa mu jóge woon ba ñu déposé seen demande manifestation ca place indépendance kayit dugg ci caayay préfet bu ndakaaru yàq ko musiba ak mbelengaan collectif ñoo lànk ñoo bañ la seen kay xamal nañu ne sol nañu seenu dàll dugg dëkk bi di daje ak di waxtaan ak syndicat yi ci réew mi ngir ñu ñëw ci seen ndaje mi ñu woote suba ci àjjuma ji ca place de l'indépendance jàppale leen ci xeex bi Le Quotidien nañu syndicat yi wuy ji nañu leen coalition des confédérations syndicales des travailleurs du Sénégal di mbootaay gu dajalay syndicat yu ci mel ne CNTS CSA CNTS FC UDTS ak UNSAS nañu ci seenu ñooñ ñu wuy ji ci woote bi ñoo lànk ñoo bañ woote àjjuma ca place de l'indépendance nas ngir xeex yokku gem ci njëgu courant bi l'observateur ni ñu ñi ci nguur gi ñoo ngi nas ay pexe ngir contrer ndaje mi gaa woote ci place de l'indépendance suba ci àjjuma ji am na réunion bu ñu def démb ci àllarba ji ci teewaayu cadre yu nekk ci nguur gi ku ci mel ne Pape Mawo Diouf la doon waxtaane ci réunion ba moo di fexe ba lu gaa yi wàq rek ñu suul ko suur soit nañu collectif ñoo lànk ñoo bañ fa ñu nar a jëm ak préfet bu Ndakaaru moo di ñu ne ko dañuy daje ca place de l'indépendance mu ne leen maa mënuta autoriser benn manifestation ca place indépendance jur jàngi gouvernement bu Sénégal lise ko ne nañu mooy Ndeye Tické Ndiaye Diop porte parole gouvernement bi ndax ndaw si fatt na nit ñeeg fëti français yu muy def ne conseil des bu ñu ci réew mi Ndeye Tické Ndiaye Diop yàqu ko ndax communiqué ba mu cay def fëti français yi neen la bi ci mujj journal bi nañu démb la bi ñu defee ndajam conseil des ba nuppi Ndeye Tické Ndiaye Diop di def communiqué wàllu gouvernement bi di Ndeye Tické Ndiaye Diop futi français yooyu mu dëkkee élève sem 2 sax